قدوسا متليا عني وعن كرادي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لنسي سلمت كل يوم أيا بنفسي بطيء منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وعاملي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما قد تصر إلى الأرض جماعتي يا الله أنت العزيز العزي أطيب بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اللي اخترته يا الله عجبت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداد بنفسي اللي اخترته يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تلك يا الله الأعظم بالبر والسر والرضوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سم وخن الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا رب يا الله غفرت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا قدر يا الله باب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهل الفاخ مسألتي فلا كسب ريايا وأبو يا الله لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وخوت لي رسطايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات تعثت منتميئا أتى الأليم keroog bi taw bi defee nii muy xin taw bu rëy bi cent quarante millimètres yi bi mu ko tawee fii bassin bi def fees nga xam ne dañ buñ ko doon nat bu waree jël junni mètre junniy mètre kib jël na juróomi junniy mètre kib junniy mètre kib bi mu attan nag da koo jël ñeenti junni yëpp da ko tasaare ci quartier bi lii dugg ci kër yi lépp dugg ci kër yi mbedd yi fees dell bim ko bi mu ko defee bi ma xëyee ñëw leeral la ko de sëñ bi yëg ko ñëw ne ma demal ci sëñ Bas ma dem leeral ko ko ñoom ñi ñëpp yëg nañ ko ñoom ñëpp woo naa leen ne leen sëñ bi yëg na ko yebal nañu ci sëriñ Bas dem nañ ci sëñ Bas leeral na ko sëñ bi ne maa ngi leen di woo ñu waxtaan ñu woo ñenn ci Kër Ñang woo ñenn ci Ndaamaatu woo ñenn ci Ngélému booba ndox mi demagul ngiraaneen bi ñu toogee ci sous-préfecture ñu ne leen sëriñ bi yëg na ko looloo yitteem wax na ko sëriñ Bassirou tey jii la ma leen waxoon loolu moo tax sëriñ bi boole sëriñ Bassirou mi ak sëriñ Moustapha Lakaram mii mu ñëw bis boobu sëriñ sëñ bas woo na ministère de l'intérieur woo na bépp autorité boo xam ne ak bépp action kuy def action muy maire bi muy Touba ca kanam muy kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi di jéem mu yéen ñi nga xam ne am yëg-yëg ci ne yéen ñi nga xam ne amu leen euh, xaalis bu ngeen ci def waaye am ngeen seen am xel ak seen doole te attan ko cee def yéen nit yëg na ko moo tax ñu woo leen wax ko ko biñ ko ko waxee mu ne dem leen waxtaan dem leen xool nan la ñuy def état bi mi ngi jël na ay décision ñi ngi concerné wu yëgal na ko président de la république président jox ndigalam ay ministère am ñu ngi jokkoo ak Serigne Bass te yaakaar naa ne suba danañ ci xam dara ndax ñoom ñëpp danañ ñëw ministère de l'intérieur danañ ñëw ànd ak bépp ministère concerné ñëw ngir régler problème bii bi mu ko bi ci sëñ bi waxtaanee ak moom ñu ñu ñëw waxtaan ak yéen ngeen li ngeen ne yaakaar nga ne mooy solution bi moom dong lañ mën a gun muy ñu def ko muy wut ay pompe yu ndaw di ci def liñ man état bi indi ay ay oto tasaare ko ci dëkk bi ñuy pomp fi nga xam ne boo pompee amoo foo ko yóbbu sapeur pompier ñu ñu déployé ko jël mbooleem lu moyen yim am maanaam ànd ak yéen ngeen nekk ci ba tey jii sëriñ bi ñëw ànd ak sëñ Moustapha Lakaram sëriñ bi yebal leen ñu ñëw xool ko suba ministère de l'intérieur dana ñëw ànd ak ñetti ministre yaakaar nañu ne li ñu bëgg mooy solution bi ñu def ko nu mu gën a gaawe teg fii pompe yoo xam ne dana jël mbooleem ndox mi ci dëkk bi génn ko yóbbu ko ba Daaru Rahman nga xam ne mooy solution rapide bi nga xam ne bu ñu ko yaakaar nañ ne bu ko defee fii ak màggal kenn ku ci nekk da nga mën a màggale ci sa kër te dootoo am ndox même bu tawaatee taw bu ne mel dana fekk matuwaay yi ñu jël ko ba jafe-jafe bu dootu am. loolu moo tax sëriñ bi ñëw ne mi ngi xool ko massawu leen waaye li ngeen xam ci li ngeen ci xam bay wax bët bu yàlla sakk xam na ci loolu. ndax da yor na ñëpp moo leen yilif ñëpp moo leen yilif te yaakaar naa ne ku yilif ñëpp am ay ay am ak njaboot fii kenn ku ci nekk saa boo xëyee da nga ko rendre compte te sëriñ jënn yitte lañ am muy sëñ taxa muy moom mii muy sëñ Moussa muy kilifa yëpp goo xam ne kilifa nga tey responsable ci dëkk bi muy Touba ca kanam muy maire muy kil action acteurs yi nga xam ne ñi ngi ñi ngi bàyyi xel tey jéem dara kenn ku ci nekk def nga li nga man yaa ngi koy bàyyi xel ndax ab taalibe munul tëdd di nelaw ak lekk ka naan am xelam di dal te mu wóor ko ne ab mbokkam wala ab mbokkam taalibe mi ngi ci ay jafe-jafe yoonu murit solidarité la tudd dañoo ah, solidarité loolu sëñ bi métti na sëriñ bi te defe naa ne Cheikh wax na ko ci déclaration am nee na leen sëñ bi ñett mooy yitte addunaam université bi assainissement bi ak euh, ndoxam taw mi ndoxam naan mi muy forage yi nga xam ne mooy leen ñett yi mooy yittee addunaam moom la bëgg mu régler une fois pour toutes te loolu ku ne ku ne ku ne assainissement indoone rek li ngay njëkke mooy Kër Ñang loolu xam nañ ko maanaam loolu mi ngi ci na ngeen ko xamee noonu euh, sa kilifa yu bari ñëw nañ ñi ngi fanaan ci dëkk bi suba état bi dana ñëw bu ñëwee li ñu seen li ñu bëgg mooy solution définitive teg fa loo xam ne ndox mépp dana ko jël génne ko dëkk bi. loolu mooy seen yitte. loolu tax mel ni état gouvernement bépp daanaka déplacé ndax bu ne ministère de l'intérieur dana ñëw ànd ak ñetti ministère concerné loolu la ñuy def si ne am nañ matériel boo xam ne nee nañ mi ngi commencé ñëw dana ñëw suba bu ñëwee loolu mooy doon seen yitte. loolu daal moo taxoon sëriñ bi déplacé wu ànd ak sëñ Moussa Lakaram yi ñëw di tànki sëriñ bi di bëti sëñ bi waxoon na ne leen sëñ bi yëg na ko wax na ne dégg ngeen lim ci def wax na leen ne leen sëñ bi mi ngi ci guddeeg bëccëg wa keroog bi ma leen wooye wax naa leen ko firnde ji mooy lii tey ñun nag lii lañ man sëñ bi def ñu wee teg boole ñu nekk ci seen kanam ñu di ko xoola suñ gisee ñu wax jawrinam jawrinam dem wax moom su jawrinam wax ak moom la muy décider ak na muy def nag mooy lii mu def tey kon loolu laa amoon ci li leen di wax sëriñ bi daal nii la mbir mi demee population baa ngi nii ñi ngi ñu ngi nii.